asalaamaaleykum mbooloo mi euh, man la Biram Demba euh di journaliste nek communicateur traditionnel acteur culturel euh, en même temps di gëstu ci ada ak cosaan ñu ñëwoon fi nak tay ci toutinfo et à travers la chaîne. Euh, Toute Info TV bu waxtaan ak yéen ci aada ak cosaan aada ak cosaan ci gox bi nga xam ne foofu laa dëkk muy siin siin nag soo ko déggee jaxaaw a tax euh, histoire jaxaaw nag xam naa ne yaatu na yaatuwaay boo xam ne dañ ko mën a commencé rek wante duñ ko mën a jeexal te du jeex mukk dañ ci wax rek li nga xamee moom moom la ñu xam moom la ñu jàng ci téere yi moom la ñu jàng itam ci suñu ñi nga xam ne ñooñu meññ ci euh, côté papa côté waajur bu góor ak ci wàllul ndey nga xam ne dañuy doon toog ak ñoom ñi di ñu wax ñuy dégg ci mbag ñi aussi ñi nga xam ne ñoo dëkk ca dëkk ba nga xam ne ñooñu dañu baaxe histoire bi cosaanu siin cosaanu jaxaaw et ak li nga xam ne aussi dañ ko gëstu dañ ko gëstu suñu bopp ñu ne nag comme ni ma ko waxee léegi euh, soo déggee siin jaxaaw a tax siin yaatu na fi mu jógee dafay yàgg parce que mu ngi jóge ci mu ngi commencé ci mille cent quatre-vingt-huit ci buur bi ñuy wax Maïssa Wali John, Mansa Wali Mane ou Maïssa Wali John dinañ ci dellusiwaat euh, soo ko buggee situé, soo ko buggee xam fan la si fan la jaxaw nek dafa nek diggante saloum Kajoor Bawol hein ak. Séné euh, ak gàmbi foofu la jaxaw nekk nekkoon gox boo xam ne dañ koo xam ci aadaam ràññee ko itam ci cosaanam muy dëkku histoire comme na ko waxee dëkku histoire boo xam ne dafa dëggu parce soo seetloo soo jegee borom xam-xam yi dañ la ne siin muy ci euh, côté ci wàllu ci wàllu ci wàllu aada ñu bëri jaarañu fa sëriñ su bëri jaarañu fa soo xoolee itam ci côté buur yi buur yi bëri itam jaarañu fa mu nekkoon un royaume boo xam ne gox boo xam ne dafa ubbeeku woon ubbeeku woon na lool nag mais nag dëkk bu tëje woon la parce que duggoon siin rek problème la woon pour nga dugg fa euh, def fa ay euh, bugg faa bugg fa dara dafa jafe woon ndax dañu amoon euh, système ou façon bu ñu doon bu ñu doon dundee boo xam ne buur yi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko xalaatoon ay xalaat yoo xam ne buur yee ko defoon ñoo ko xalaatoon soo xesee ba falu dangay aar dëkk ba danga koy aar naka nga koy aare mooy soo faloo nekk buur dangay jël say rakk mbaa say mag mbaa say doomu tànt mbaa say doomu bàjjen ñoo xam ne wóor nañ leen nii ñu am fit lañu ñu am xam-xam lañu ñu am dëgg lañu ñu la bëgg lañu ñu la gëm lañ nga jël gox gox gox ci gox goxaat yi wër siin yëpp nga teg fa kenn muy genre buur bu ndaw boo xam ne lu am lu bëgg a xew lu ñuy xalaat mbaa lu ñu mébét mébét feneen ak lum gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw su ko xëy ci suba mébét ko mbaa nga bëgg ko def balaa balaa euh, jant bi sow boo dina ko yëg moo taxoon ñu ne siin euh, soo fa duggee doo génn pour génn fi itam doon problème ba ñu di ko méngalee sax ak kasu ba turi ndungu siin boobu ñuy wax su nit defee dara ñu yóbbu ko kaso ñu ne ndungu siin dañu ne ci tubaab wax ju yàqu la ci wolof ndungu siin du noonu mais dugg siin la parce que si soo fa xasee ba dugg pour gëna fa da doon problème soo fa xasee itam soo bu wona kene itam dina doon problème motax ñu méngale euh, sin ak ndungu sin bi nga xam moy kasso kaso muy dugg siin et euh, sëñ Mamadou euh, sin dafa amone ay euh juróom fukki buur ak juróom-ñaar ñoo fa njëkk a nekk commencé 1188 ci may sawaali may sawaali prince gaabu euh, prince boo xam ne doomu buur la woon bu nekkoon euh, dans le mandeng yàlla àtte bi euh, nguur gu jeexee bi nguur gi naxasaayee moom mu des fa ak frère ak rakam mbaa magam bu tudd jànkewaali ñoom lañ waroon a fal normalement ñoom ñoo waroon a donn nguur mi mais ñaari doom ñaar lañ woon ak seeni ak seeni jigéen donc bariwuñu mais ci seen wet dafa amoon benn sëriñu pël boo xam ne non seulement bëri woon na xaalis amoon na ay nag amoon na ay tool mais amoon na itam ay njumtukaay yoo xam ne mënoon a tax ku mu janoo rek ci xeex mu faagagal la faagagal la alors may sawali ne jànkewaali waaw yow yaa ngi xëccu nguur bi te xam nga ne kii moo ñu ëpp doole te ñun bëriwuñu man la ak yow ak suñuy jigéen bés bu ñu dajee ak moom mu rey ñu mais. Euh, Euh, waaso bi day jeex waaso bi dina jeex parce que suñu reyee rey ma kan moo duñ dootuñu feeñ fen mais comme jànkewaale moom dafa xaw na dëgër bopp moom mu ne day xeex ak day xeex ak euh, euh, pël bi sëriñu pël bi ne day xeex ak sëriñu may sawali nag moom ne moom kon nag moom dafay dafay dafay dafay dafay dafay génn dafay génn dëkk ba bi mu génne dëkk ba dem njëkk a def mooy traversé traversé fleuve Sénégal fleuve fleuve Gambie plutôt ñëw wàcc dëkk bu ñuy wax Kulaar Kulaar Soose soo fa demee ba léegi Kulaar Soose am na Kulaar Séeréer am na ba mu fu jógee dafa ay at at at at am ci ci ay ci ni ñuy wax ci histoire ñu ne daal fu mu su tëddee rek su guddee ba fu mu di xalat am yu koy wax ne yo fi du fi nga wara tok da nga wara avancer da nga wara continuer ci kanam so continuer da nga xam da am dëkk bo xamné ne foofu di nga fa mëna nek nekk def ci ay dëkk di dem ci ay dëkk dem day mu def ci benn dëkk tok fa ñaari at ñetti at ñeenti at at na du ko fekke mu bay may fa jabar ba ay ñi andal tak fa ay ay ay ay ay ay jabar mu diko def be ñew saax maak moy dekk bu mag bi te ge ñu gën ko xam ci mbiisel mu tok nak fofu nak la rawani fofu la ko rawani tek mu tok fa tok fa tok fa tok fa tok fa be ci histoire ci bir histoire bi euh, comme mag la won amoon na jàngoon na alxuraan amoon na yenn benn xam-xam bi nit yi respecté woon nañ ko du dugg ci du dugg ci dugg ci soxla kenn lu dul soxlaam fekk na séeréer si taa yooyu siin amul buur ay laman yoo fa nekkoon laman yoo xam ne amoon nañu ay ay ay ay ay tool amoon nañu ay nag amoon nañu xaalis lu neex lañ doon def suñ jàppante woon seen jàppante rek di reyante di def doo xam daal kenn xamul na la ba ba benn benn benn benn jamono benn jëm jamono am ay ay problème yi fa amoon benn histoire fa amoon ci problème ay ay euh, benn ay ñaari xarit yoo xam ne kenn ki dafa waroon a tukki jël ay nagam dénk ko dénk al alalam jox ko dénk ko xaritam bi mu demee def fa lu juróomi at at ci fukki at. parce que waxuñu exactement ñaata ñaata la fa ñaata at la fa def bi mu dellu see bi mu laajee waa ji nag yi waa ji dafa bañ ne ko moomuloo ko fekk nag yi jigéen yi am nañu doom donc bi mu ko dënkoon su doon fukk war na dem ba ci ñaar fukk ba ñaar fukk ak juróom alors histoire boobu bi ñu demee daal fu essayé ko arrangé arrangé arrangé ñu ko arrangé ñu ne ah comme góor gi mu ngi fi ci dëkk bi. te ñëpp xam nañ ne c'est un sage ku am xam-xam la ku mandu la nañ dem dénk ko wax wax ko affaire bi ni mu demee xanaa boobu moom dina ci dina ci dina ci indi dina ci indi euh, solution da ko saafaraal bi ñooy wax ko ko et damay bañ histoire bi gudd mu mu mu mu mu euh, may sawaali dal di euh, régler problème boobu bi mu ko réglé ñu jël xa euh, euh, euh, nag yi jox ko ki nga xam ne moo ko moomoon en réalité ñu nekk kii kat war nañ ko mën a fal buur mais nag moom mosuñu ko officiellement fal fal buur nit ñi daje rek nit ñi daje rek ne ko kon yow yaa ñu yaa ñu doy mais comme ni ñuy falate buur tey biir jaxaaw ni ñuy ni ñuy fal fale buur parce que après moom am na beneen buur. bu tudd tasi fay dañu fale tasi fay te falewuñu ko noonu waaw parce que falu falu falu falu jaxaaw euh, dafa nekk quelque chose boo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa xaw dafa dafa xaw a am ay particularité dafa am folklore am euh, li ñu tubaab di wax le rituel aada aada mu am aada boo xam ne dañ koy respecté ay normes yoo xam ne dañ koy respecté donc may sawali mu suñu ko fal comme ni fallait, fale yeneen un bruit. mais là, moo doon buur premier buuru Maïsawali, Wali Wali 1888 1229 Tassé fay hein 1229 ba 1230 ben at la benn at la benn at la fa def alors bi fa jógee ñu jël Wagan, Tening jom Tening 1230 la 1256 après ñu jël Njuma jeng ñu fal Njuma jeng Njuma jeng 1256 1264 après am ku ko remplacer muy Banga Yaay Sarr Banga Yaay Sarr euh, euh, euh, Mahamadou Moustapha mooy seen maam Banga yay sar mo jël 1264 be 1267 après ñu jël jomay Ñaan jomay Ñaan